assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi maa ngi laa nuyu la ziyaara di la xaq di la balu xaq di sàkku ci yowit nga bal nu xaq bu baax a baax mu mel ni dañoo delsi ak Seykul Haaji Malik Si radiyallahu taala anhu fi nga xam ne fii lañuy ñuy yemoon ak moom ci xilaatu zahab bi boo fàttalikoo mu ngi tolloon ak ñun ca góor gi Abdul Mutalib ba muy gas teen ba di zam-zam am bagaas yu fa génn bagaas yoo gaa yi opposé na ko gënooñu coo yey ndax ñu nag yow la woon sunuy baay ak sa baay sunuy maam ak sa maam kon ñoo ko bokkoon duñ la ko bàyyi mukk nag histoire ëllëg ñu koy nettali ñu nettalee woon ne ñun dañoo toogoon ne yàcc na yasar rek déedéet waxoon na la góor gi Abdul Mutalib ne leen léegi lan mooy ci wax bi ñu ne léegi daal jërul ñuy dem bii yoon dem dëkk dëkk pour ñu àtte ñu nañu dem ci xiram bu mag bii ñoo wax hubal tabaarakallaahu suñ fa demee lépp leer ñu nekkoon ko nuñ koy defee góor gi ànd Abdul Mutalib ne dinaa indi ñaari bant ngeen indi ñaari bant ñaari bant yu zone dinaa ko indi pour kaaba gi ñaari yu ñuul pour man ñaari weex pour yéen ba ñu sànnee ñaari zone yi tabaarakallaahu mu dal ci kéwél yi ñu sànniwaat ñaari weex yi ngelaw li naawal ñu sànni ñaari soon yi tabaarakallaahu mu daldi dal ci dal ci jaasiya yooyu yaakaar na ci la ñu nekkoon daal ak mbubbi koŋ yàgg yëpp guur gi Abdul Mutalib gañ mbubbi ya jaasiya ak jaasiya la ca des nag kaawa ga gañe ko ñoom yorewuñ dara loolu ci la toll góor gi ne xaazal xasalayni baytullahi summata ma baqi li shaybata min duuni shiraakihimi ma Seydul Haaji Malik Si radiyallaahu anhu nee na xaaza làq na gañe si ku gañe mu ne baytullahi néegub yàlla ba moo gañe lan la gañe mu ne alxasaalay ni ñaari kéwél yi la gañe nga ne ko waa kon de xanaa war na waa des mbubb koŋ yàgg jaasi mu ne waaw su matamaa topp la nga xam ne bakaa des na te mooy mbubb koŋ yàgg jaasi ya boo loolu de li soybata ñeel na soybata soybatal xamdi di borom béjaa bu ñu sant ba di góor gi abdul mutalib min duuni siraaki mi waris kenn di ko bokkaale ak moom cër ba mu ci am moom dongo ko ci am gaa yi commencé nag di ko jabulise jëm ci réseaux sociaux dem ci pénc mi ñu ne góor gi li kaaba gi gañee da koy noosee da ciy takk ay soxna tabax ci kër yëkkati ci entreprise góor gi looloo ko tax a jug avant rumeur yooyu nag di départ bay tas góor ga moom ca tàng-tàng ba la jël la kaaba ga moom réparé ko kaaba ga mooy rakiste ku ca sayidul haaji malik na wa aslaxal baaba baabal bayti zayyanahu bi dalika zahabil maskuri zahima mi ma ngoog danga wax ne wa aslaxa réparé na yéwénal na defar na rakiste na si lu mu rakiste mu ne al baaba buntu ba nga ne ko xaw ma buntu ba mu ne baabal bayti buntu kaaba ga laa wax màggatoon na aajo woon na defar soxloo na ko mu jël ko defaree ko ko zayyanahu taaralee na ko kéwél ya taaral na ko kéwél ya bi zalika boobu la wurus wurus woowu nga xam ne moom la amoon di wurus si kéwél yooyu moom la jël rakiste ko ko ko ko yëf ya rafet lool gaa yi nag moom tabaarakallaahu damm seen làmmiñ amatul lu ñu wax bi daal di kasaab almaskuur yu bëri bañ tudd zaahimam mbir moom muy borom yitte taxaw ci defar loolu defar bu gaaw a gaaw loolu noonu la dégg nga taxul ñi ko opposé woon teggi seen tànk de ñi ko opposé woon taxul ñu teggi seen tànk ña ngi koy gën a jabolise di ko gën a xeex ak metod bu ñu ko mën a xeexee rek ña ngi koy teg ci kawam tabaarakallaahu ngir lan bu daraam jàll waaye dañoo fàtte kan mooy yàlla bundu xataal yooyu ak xatal xatal yooyu ak jafeñ-jafeñ yooyu nga xam ne góor gi Abdul Mutalib mi ngi ko doon dund dafa dem ba ne nag maa ngi warlu ci sama bopp loo xam ne nekkul farata mooy bis bu ma yàlla mayee fukki doom yu góor yoo xam ne saa bu ma gëstoo gis leen fu sama bët xonkee ñu weexal ko fu ma jaaxle ñu jindi jaaxle gi dinaa ci jël kenn ca ñoom ñu góor ñooña jël kenn ka jaamoo ko yàlla te fa muy waxee loolu ak fa muy amee fukki doom yu góor dem na 30 ans ndax jooja la jamono muy wax loola booba doomam jooju ñoo wax xaalis rek la amoon doom jooju ñuy wax xaaris rek la amoon waaye gannaaw gi am na fi Zubayru am na fi Xajla am na fi Diraar am na fi Abbas Abu Lahab ñu gën ko xam ci Abdul Uzza ah ba ci Abu Talib Abdullahi ñi ñëpp Xajla yëpp de ay doom yoo xam ne am na leen fi tabarakallahu mu mel ne nag ñu dem ba ci kanam tuuti wa kaana nazira nazrin is hum ijtamau ala aziyatihi min shiddati l adami cheikhul haaji Maalik nee na wa kaana nekkoon moom góor gi Abdul Mutalib nazira nazrin di nizër di aji nizër ak nizër nizër nag mooy lu nekkul farata nga def ko farata ci yow bu ma yàlla defalee nangam ma def nangam ci xeetu jaamu yàlla nga nekk si kañ la nizër googu mu ne ishumu ba nga xamee ne ñoom waa Makka di opposition bi ko opposé ijtamau d'accord nañu dëppoo nañu ñoom ñëpp def benn bloc def benn coalition ala aziyatihi ci lor ko ak indil koy jafe-jafe xatal ko ci dëkk bi lu tax min shiddati adami ngir taru nooneel ak mbañeel goo xam ne tabaarakallaahu dox na seen diggante góor gi Abdul Mutalib loolu la fa naala maaraama min mawlaa asratu ab naa in yuinuunahu fi lqitli walqidami Seydul Haaji Maalik nee na mujj na am fukki doom yooyu nag fukki doom yoo xam ne daañu ko dimbale ci gaa yi noonu gii ñu ko noonu ak liggéey bi mu war a liggéey ci dëkk bi ñu taxaw ci jonn fa naala am na moom góor gi Abdul Mutalib maa la nga xam ne raama sàkk woon na ko min mawlaahu ci boromam te lan la sàkk woon ci borom mu ne asrata am naa fukki doom yu góor yam doon sàkk sunu borom xéewale na ko ko doom yu góor yoo xam ne yuinuunahu daañu ko jàppale daañu ko dimbale fil xitli ci noonu gi ko gaa yi noonu wal xidami ak liggéey bi nga xam ne tabaarakallahu war na ko liggéey fii ci dëkk bi pour doomam yooyu tabaarakallahu jàppale ko ci ba mu demee ba am ko nag yëf yi li gars yi wax données données yi soppeeku nag ndax xam nga fanweeri at moom lu ne dafay xaj mun nga fay wax mbir fàtte ko fàtte ko fàttekaat ko ndax fa mu waxee loolu ak fa muy niséri niséram googu ak fa doom yooyu amee toll na fanweeri wax dëgg yàlla fanweeri at dafa yàgg nag yàgg na lool mu tëdd ba guddi rek ñu ne kay la nga kóllërante woon ak sa ba ngay nekk ci ay xate-xate ga jafe-jafe matal ko mu xëy rendi ginaar mu tëddaat ñu waxaat ko ko mu xëy rendi bëy ñu waxaat ko ko mu rendi xar ñu waxaat ko ko mu rendi nag ñu waxaat ko ko mu rendi giléem loola continuer di ko feeñu mu xam ne nag dëgg-dëgg nag cëgg ci guy lu waay waxoon na ca dellu ci la dajale nag doom ya dana la ko wax léegi ci gàttal insha allah Cheikhul Haaj Maalik nee na wa qad takarrara baada baamu na si lu baamu mu ne ruyatu man géntu ka nga xam ne yàquwul dana wax naan ka aw fi matalal allazi la nga xam ne ahadta kóllërante woon nga ko ak sa borom waxtasimi ta nga dogu ci def ko loolu si kañ la am mu ne baada nay li gannaaw amu fukki doom yi góor yooyu mu doon sàkku la am lu koy feeñu nag naan la nga kóllëre woon ak sa borom lépp na mat lépp na jaar yoon ci la dajale góom yu góor yëpp nag dajale seen yaay yi mooy ña fa nekkoon ci joojale jamono mooy safiya ca la bokk bintu jundub fatimatu bintu amrin ca la bokk ah xaalata ca la bokk natlatu ca la bokk wala nutaylatu ca la bokk fatimatu bintu amrin ibnu ays ca la bokk kon ñooñu ñëpp ca la ñu bokkoon tabaarakallaahu Euh, ñëw nag mu ne leen yéen ñii kat avant ngeen di juddu ba ma fi nekkee ak seen mag yi ñuy wax xaaris nekkoon naa ci ay xate-xate ak i jëfeñ-jëfeñ yoo xam ne sama bokki bokk yi ñoo ma ko tegoon ma am lu ma digoon yàlla su ma yàlla defalee nangam ma def nangam léegi nag nangam jooju ma nooy ma su ma amee fukki doom yàlla dogal naa am naa fukki doom yu góor mënumaa jël kenn ren di ko bàyyi ñu ca des ndax su ma ko defee dafa ñaaw te yaayam dafa ma mere ba waxee nag yàlla tàggatal ko doom yeeg soxna yi ne ko ñun daal ñu ngi nii comme mënoo jël kii bàyyi kii yóbbu ñuy fa nga xamee ne fa la ñuy defee seen wantale yooyu mooy comme seen wantalekaay yi paase rek nga xam ne bu ñu amaan problème fa la ñuy dem di fa wantalee ji nga jox kenn ku ne jël bant suñ demee ka nekk ca xiram baag bagaas ya su wantalee ku bant bi dal rek ñoo xam ne kooku lañ war a jël war a jël jaamoo ko yàlla ñoom ñëpp ñu d'accord ci loolu waaye ba mu leen koy wax xawoon na ko tiis lool stress na ko lool lool lool lool xawoon ko jaaxal moo tax sayid xul haaj maali ne faxtamma xamman shadidan jaamian bihim musaayiman xaarijan bil walidil karami sayidul haaj maali ne na faxtamma jàq na tiit na moom góor gi Abdul Mutalib ndax jaaxle na xamman ak njaaxle ak njàqare goo xam ne sadiidan bay aji tar ndax daal xamul ku mu ci war a jël te yëf yi foog mu am jaaxle googu nag tax na jaamian aji dajale la bihim ca njaboot ga ba mu leen dajalee laaj leen seen xalaat ñu ne kenn ku ne jël bant musaa man mbir moom muy aji wantale dégg nga de waaye ba mu wantalee xaarijan mbir moom muy aji dal bant ba bil waalidi baa bi mën a alaa bi mën a alal waalidi ca abdul mutalib alkarami alal waalidil karami ci waajur ku tedd ka te mooy waajur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu moom la bant ba dal ah yëf wa amma naawa isaafin summa naailatin murida ifa idaka nasri walqasami ñu ne fuñ ñu ne nañu dem ci boori Kaaba ga am na ñaari xërëm yu fa nekk yoo xam ne fa lañ daan rendee seen bagages yi yëpp benn mi ngi tuddoon Isaaf benn bi tudd Naila boo demee ci téere siira ne dañuy wax ne ñaar lañ woon yoo xam ne góor ak jigéen lañu woon danoo bàyyi koo woon mag boori saam ni aji màkka ñu joxante rendez-vous ne bu ñu ñëwee màkka foofa dañu fay mooy yàlla ñu ñëw yàlla soppi leen masku leen maa soppi leen ay xeer am na ñu wax loolu waa Màkka nag lépp loo xam ne ña nga kay def tabaarakallaahu ci xeetu jaamu yàlla ak rendeek ak nangam sàngam foofu lañ daan teeral seen mbir mi wa amma jublu na moom góor gi Abdul Muttalib <clears throat> nax wa isaafin jëm ci côté xiram boobu ñuy wax isaaf suma naa ilatin léeg-léeg sax nga dégg ñu ne mooy Safa ak Marwa am na ci réew joxoñ loolu ñoom yàlla soppi xeer yooyu summa naailatin topp xeer woowu ñuy wax naa naaila di marwa si lu fa wut si woon mu ne murida ifa idaka nasri mbir moom muy aji nam ma matale loola ni la ni sér wal xasami ak ngiñam loolu nga xam ne giñoon na ko bu yàgg-yàgg avant dara di xew waaye ba muy dem ña ko opposé woon nekk nag comme yaay kilifa gi te lii boo ko fi yoonalee dafa tax ëllëg képp koo xam ne danga am doom ju góor soo amee fukki doom fii ak rendi woo ci kenn doo am jàmm dégg nga bu baax fii ak rendi woo ci kenn rek doo am jàmm gars yi mu ne ko nag lu ñuy def mu ne ah fu nekk lii moom du xalaat jël kenn moom di rendi yóbbu foofa déedéet indil beneen solution bu bokkut ak bii nga bëgg a def tabaarakallah léegi nañu taxaw noonu sax ndax su ko boo léegi ñu commencé ci qaalu qaalu laa tafal bisa abadan kay laa yura aadatan fi fira lam taarimi